jërë ngeen jëf Benno sans ndax yaakaar dana ci am ponk boobee la l'observateur xëy di jàngat ubbi yéene bi ak ëllëgu wóora di la gisal waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu doon dem tey ci élection présidentielle yu yi ak beneen candidat bu bokkut ak Macky moom Macky moomee bu doon koy arrière la Walf Quotidien nee nañu jamono ji sës na rëkk ci miir bi li tax yéene kay bi nee nañu mooy kuréel gi ñu taxawal bu yàggul ci réew mi di F24 mayu njiit si du quotidien mi ngi ñuy wax ne am na keneen ku ca yokk muy honorable député Mariétou Dieng moom cinquième vice président bu parti réew mi génn na ci groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar démb la ko xamle léegi ab député non inscrit la loolee ginnaaw bi Idrissa Seck génnee ci mois présidentielle bi journal bi gis nañ ne majorité gi waa Benno Bokk Yaakaar am ci assemblée nationale mu ngay bëgg a taq suuf majorité bi mi ngi ci dansé le quotidien 82 député la ñu dese ci assemblée nationale source ne ko matu ko député la waa ma fa remplacé Pape Diop moo koy def député ci jamono jooju opposition bi ak non inscrit boo boolee li ñu fa am ciy député assemblée nationale yéen bi nee nañu toll nañu ci député génn député Mariétou Dieng ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar source mi ngi ñuy wax ne waa parti waxaguñ ci dara xamuguñu ndax dañu koy remplacé am déet ni waa APR parlementaire Benno Bokk Yaakaar li ci journal Tribune gis mooy Idrissa Seck moo jël rewansam ba xañ Macky Sall majorité ci assemblée nationale Idrissa Seck mi fabu dellu ci opposition bi ba noppi xamle ne guddi ñu toll mooy chef de l'opposition le témoin mi ngi laaj ndax moom Idrissa Seck nekkul di wutiwaat loo xam ne xas na ko ñàkk ba pare direct ci news nañu du yomb ci moom de ndax Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ñoo ngi dóorantey kurpañ ci kan mooy chef wàccee ci terrain bi dinañu xam kan mooy chef ak kan mooy suq réew mi quotidien di laaj ci liñ parti réew mi Idrissa Seck wax ne mooy chef de l'opposition bi ndax njiit réew mi Macky Sall dina ko ci topp ñu toppi journal La Tribune xooli fa meneen mbër mu sampum dëndëm ci élection présidentielle yi di ñëw docteur Daby Pouy président bu mouvement Sopp Sénégal déclaré na candidaturam ci élection présidentielle yu 2024 yi journal Tribune nañu bu mu ko a bëgg a a yóbbu xam ne yorootuñu réew mu ndaw ñu daw dem ci Vox Populi mi ñu wax ci xëtam mu njëkk ne ministre des forces armées di maître Sidiki Kaba dal na démb ci kaw ñiy gàkkal derub l'armée Sénégal ak di seet ñu ñu indi féewaloo ci seen biir maître Sidiki Kaba ministre des forces armées nee na ñiy jéem loolu nañu nuppalu ndax li ñuy jéem du ma mu di ay kàddu yoo journal bi nee nañu mi ngi ko wax démb ba ñuy installé SEMGA bu bees bi chef d'état-major général bu na xaat yoon ñu fas yéene jaar ngir doxal li ko dénk la si ne na ca ndaje moomee fa la ñu fësalee garaatub général bi ñu jàppal professeur Fatou Fall soleil national nañu mi ngi kii mooy général Fatou Fall mooy jigéen ji njëkk a dégg général ci l'armée bu Sénégal mooy léegi njiital hôpital principal bu Ndakaaru l'observateur xëy jël ak xalimaam di ñu gën a xamale ak général faatu Fall. abonné leen ci suñu su nekk ay xibaar yu wér mi